très bien. asalaamualeykum. waaleykum maa ngi jéggalu kàddu yu gàtt fii aw fi kàddu parce que Serigne Mansour Sy Dabakh mooy sunu wayjur toog fii wuutu fi xalifa bi ànd njabootam gu baax gi ak ay rakkam jaare ko ci Serigne Maam alfa sunu nijaay sunu baay sëriñ Mulaay sunu nijaay sunu baay sunu doom ak tabaarakallaahu sunu mag ju baax ji ñu toogal di sëriñ Mansour Sy Jamil sunu lépp alxaj Pam Maxtar Kebe alxaj Abdul Aziz Kebe docteur Mohamed di ñoom Cheikh Omar Abdul Hamid Serigne Cheikh ak sunu rakk yu baax yi suñu ginnaaw ñoom Cheikh Omar ak ñoom sëñ Moustapha ak ñoom Bachir ak maam Habib ak njabootu ba ci Ahmed Sarr ak sëriñ Ahmada mi fi jóge ak njabootu Seydi Hadj Malick yépp ñu sant yàlla santaat ko santaat ko ci bi mu ñu mayee diggante deux mille ca jàkka zawiya ba bi ko xalifa bi annoncé ak tey lu nekk xajoon na fi kon ci mbaaxu yàlla ak kàttanam bu ñu mayee ñu fekkee ba bésu tey bii nga xam ni ci la ñuy def lancement bi dañuy wax ñun ñëpp alhamdulilahi rabbil alamin di ñaan yàlla sëriñ Babacar Sy Mansour yàlla na yàlla guddal fanam yokk wéram li mu defoon démb bu ci yamoon mu doy sëkk am na ku ko wax fii Seydi Hadj Malick barkeem waxuma fukki grande mosquée waaye téeméeri grande mosquée sax defar na ko te kenn du ko yëg waaye jumaa moo mel noonu ndax dañ ciy seenu yiw te yiw boo koy seenu danga koy bokk ak ñépp yéene ci ñépp waaye kenn ku nekk ci njaboot gi mën na defar jumaa ji kon ñi ngi sant ñëpp parce que fii ñuy wax nii ëllëg bésu liggéey la waaye kenn liggéeyul du sëriñ Babacar Mansour de du Seydil Hadj Malick xam nga ko tax yàlla mi ñu liggéeyal parce que Seydil Hadj Malick yàllaa ko taxoon di jóg yàllaa ko taxoon di liggéey mhm. moom la sëriñ Babacar Sy Mansour wax ca commencement ba bu leen ma xoolee xalifa bi bu leen ma xoolee jëmm ji man taalibe laa lii may jëf maa ngi yéen ñoo koy bokk jëf kon bokk yi ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di ñaanal yàlla ñëpp ñi ci jot a def ak ñi ciy bëgg a def te xam naa ne am na ñoo xam ni seen yaram a ngi tàng ñi ngi xasanu li yi naan maa ngi bëgg dugg mais mën dugg incha allah di ngeen ñëw parce que affaire bi ñëpp xaj nañ ci di wax nag waa diaspora bi man ci yéen laay waxal yéen laay wax bëgg ngeen déglu ma mbir mi du mbirum waa Sénégal seen yëf la pare leen yéen lañ koo pare ne yéen diaspora bi ak fu ngeen mën a nekk nag am na ay tur yu ñu jota lim yoo xam ni xalifa bi ñoom la bëgg ngeen liggéey ak ñooñu mooy ndigal li kon nangeen bàyyi xel ni tur yooyu ngeen dégg dina amaat yeneen yu ngeen dégg yu jóge ci commission bi maanaam jóge ci xalifa bi mu agsiwaat ci yéen comme ni ko yi jóge kon nag waaj leen te préparé man may seen ambassadeur loolu laa leen waxoon di seen avocat seen avocat seen ambassadeur nee na ngeen jóg defaru dama bëgg ngeen man ñi nekk Sénégal ba ñu xam ni yéen a leen man di leen wax ni nag masoon naa wax ñaari baat seydna abu bakar sadiq radiallahu taala anhu dafa jël fukk joxe ko ci guddi bàyyi ba bërset mu jëlaat fukk joxe ko mu woot nit ci secret jox ko fukk bàyyi public bi bi ñu toogee mu yëkkati fukk joxe ko muy ñeent yoon pour dàkk yàlla yàlla wàcce laaye ni yonent bi waxal ki may dàkk di ma joxe ci guddi ak bëccëg di joxe ci secret ak lu feeñ jaru ko naa tax rek man alladina yunfiquuna amwaalahum billeyli wannahaari sirran wa alaaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun te ne ko jàng bu la neexee wala xawfu alayhim yaxzanuuna kon képp kuy joxe rek Seydina Omar eh, Ali ibnu Abi Talib ku nekk xamoon na ci biir saxaaba yi ci ñi ci gënoon a pauvre ci la bokk sa maam Seydi Hadj Malick cité na ko ba bi ñu koy may soxna di Fatima dañ koo jaayloo yëreem pour mu mën a am can Abdou yaa ngi déglu Malick fu ma yemoon Seydina Abi Talib fa nga yemoon Seydina Ali dafa toog bés ñetti fan amul lu mu dunde ci biir këram amul dépense Fatima woo ko ni ko alal du faj de gàcce lay faj am yàlla yàllaay buur ñàkk yàlla yàllaay buur am naa fi ñaari sër yóbbu ko ca marché ba nga jaay ko loo ci am ñu def ko ci biir kër gi mu jël ñaari sër yi yóbbu ko ca marché ba jaay ko fa benn bu ne mu jaayee ko ñetti dërëm jël ñetti juróom-benni dërëm yi dem ba di ko bëgg a def ci gafakaam juróom-benni miskin kar ko ni ko dañoo toog ñetti fan lekkuñu gisuñu yonent bi yaay rakku yonent bi mu xool leen ñuy juróom-benn mu ni ñii su ma leen seddalee li ma yor tas yaakaaru Fatima fu ma jëm bu ma leen bàyyee ñu dem joxuma leen bu ëllëgee bu ma dajeeg rasulullahi ak yàlla lan laa koy wax mu ni dënn ba mu yàgg mu jékki-jékki rek ne xaaral ma jaayante ak yàlla jël juróom benn yépp séddale ko séddale leen ko ni toññ nag di dem yoonam mu dem ba ca yoon wa benn waay daw dajeek moom yor benn gëléem ni ko sawaay na nga def mu ni ko maa ngi mu ne ko dama doon dem marché di jaayi sama gëléem fekk marché lal li doo jënd gëléem mu ne ko ah gëléem bi da rafet na bëgg naa ko waaye yoruma mu ne ko bàyyil ma lebal la ko mu ne ko koo xamul doo ko lebal ndax sëñ Babacar si nee na leble àll yu wàdd lay tudd àll yu wàdd boo yorul juróom yi koo xamul doo ko jëflanteeg moom able leble yóbbante wakiilu dénkaane koo xam rek nga koy defal koo xamul doo ko abal mhm. doo ko lebal doo ko yóbbante doo ko wakki doo ko dénk mu ni ko xamoo ma mu ni ko xam naa la yow yaa Ali ibnu Abi Talib di rakk Muhammad yaa ma xamul boom man wóor na ma ni soo ma lebee di nga ma fay ñaata nga may lebale gëlëm gi mu ni ko juróom benn fukk mu ni ko ndax yàlla su ma demee bëggale ci Fatima bu ëllëgee ma dellu siwaat ci marché bi teg mu dox tuuti gis kuy daw xel yu metti ñëw ba ci moom wadd ni ko sawaay na nga def mu ni ko maa ngi fi rek mu ni ko dama doon dem marché di jëndi gëléem gis ñu wàcc ndax sa gëléem gi jaayu mu ni ko gëléem gi léegi lañ ma ko lebal mu ni ko ñaata lañ la ko lebal mu ni ko juróom benn fukk mu ni ko damaa yàkkamti tegal naa la ci juróom benn fukk muy ñaata bu téeméer ñaar fukk ñaata la joxe woon juróom benn dërëm lu ko dikkal téeméer ak ñaar fukk waaye loolu dikkalu ko de mu dem bay dugg këram ki ko lebaloon dajeek moom ni ko eh àll yi ana gëléem ga ma la lebaloon sànq mu ni ko jaay naa ba naxuñu la mu ni ko déedéet loo ko jaayee mu ni ko téeméer ñaar fukk mu ni ko kon delloo ma sama juróom <laughs> mu jox ko juróom benn fukkam téye juróom benn fukkam dugg si ci Fatima ni Fatima mbir mii nag duma la ko waxe fii mukk ci kanamu yonent bi laa koy waxe nañ ànd solol sa yëri ñu daw hmm. parce que lii ma dal nii foog ma nettali mu solu mu ànd ak moom naka la jub rasulullahi rek mu reetaan ni ko xanaa gëléem gee tax nga ñëw léegi la Seydina Jibril wàcc nee na yàlla ji taxoon nga joxe juróom benn dërëm yi xam nga ku la lebal gëléem ga mu ne ko déedéet mu ne ko Jibril la xam nga gëléem ga fu mu jógee mu ne ko naaqatu saalix la aljanna la jógee xam nga ku ko jënd mu ne ko dee mu ne ko Mikaayil kala ko lebaloon fayeeku la di asrafi la ko lebal yàlla wàcc na léegi laahi man jaa bil xasana fa lahu ashru amsaliha wa man jaa bi sayyiat fala yusa illa mislaha moo tax kuy def na nga def rek te yàlla tax kuy def defal te yàlla tax gis nga lii hmm. kenn ku ci nekk na ci natt boppam billaahi di nga xam ne yàlla bokk ci kenn du moom kuy loterie da ngay yàlla kon ñi ngi sant ku ci jot di ñaan yàlla yàlla na ko yàlla ful amiin amiin amiin di ñaanal xalifa bi lii mu sumb moom ak ay bokkam ak jullit yàlla yàlla nañ ko yàlla na ko àggale ak sago ñu fekk ñu bés fekk bés bu ñu koy ubbee di sant nag ñëpp nag di sant nag famille Seydi Hadj Malick parce que dëgg-dëgg démb barki démb samedi ku fa ñëwoon kontaan la parce que ñëpp a ñëw amul kenn ku manqué ci kër gi ku ñëw rek da nga am ngànt kon ñi ngi ñaanal yàlla njaboot Seydi Hadj Malick di ko ñaanal yàlla itam njabootu lislaam yi nekk fii yépp dale ko ci xalif généraux yëpp sëriñ Mansour tudd na leen sànq waaye du ñu fàtte itam nag di ñaanal yàlla ñi nga xam ni ñoo loru ci biir mbënd mii di ñaan yàlla na fi yam waaye nag yàlla bu ndox taxaw yàlla na ndox di ñëw te buy ñëw ne yàlla na ñëw ak jàmm mbas mi yàlla ko fi yàlla jële xam nga ni lii seddul ŋaaw nañoo ŋaaw bay bëgg a dee kenn joxeetul loxo yàlla na fi yàlla jële mbas mi. amiin amiin yàlla na fi yàlla delloo si jàmm. jërëjëf si Malick. ñi di ñaanal yàlla suñu docteurs yi nga xam ni ñi ngi ci rey seen bopp tabaarakallahu ñu jara jox njukkal lañu ak suñu force de l'ordre. jërëjëf di sant nag ñëpp nag di leen sant yéen aussi euh, Abdoul Aziz mais di sant nag média yi dëgg-dëgg yàlla yàlla fay leen parce que am na loo xam ni bu dul ñoom it du sotti. kon tabaarakallaahu dale ko ca nag suñu coordinateur nga xam ne moom mooy coordonné lépp di maam Oumar Ndiaye euh, suukar sa suukar tabaarakallaahu di Asia ak mboolem organe de presse yi fi ñëw yépp mbooleem fu télévision nekk ñi ngi lay sant di la gërëm ci turu xalifa bi ak turu sëñ Mansour si Dabakh di ñaan yàlla lii ñuy def yàlla na ko yàlla sottal ak jàmm wasalaamualeykum jërëjëf kon ah, mbokk yi ma dem ci architecte bi dafa war a joxe plan kër gi ma jox ma jël ma jël euh,